ma ngoog euh, ci noonee ñu jukkil leen xetu yéenekaay yi fas yéene ko doo rek Walf Quotidien yéenekaay bi jiitu ca fajar xëy na 23 juin atum 2011 yéenekaay bi ne toll na ci fukkeelu at goo xamante ñu ngi koy màggal yemook nag ci jamono ji coal troisième mandat te la sooke woon googu lépp ñaxtu bokkoon na ci coal euh, troisième mandat ak ticket présidentiel ba maître Abdoulaye bëggoon a jàllale ci assemblée euh, nationale lu bari nag xew ci googu lépp bëccëg ñu mun caa jàngee lu bëree bari bokk na ci tamit. tamit eh, keroog la Sénégal jóg taxaw ne kenn du nasaxal démocratie am eh, keroog i tamit eh, la ñu gàntal ticket présidentiel ba keroog i tamit la ñu gis ne jot na Sénégal jóge ci beneen jéego jëmaat ci beneen jéego keroog la ñu gis ne askan wi ñooy dogal askan wi ñooy dogal ci ëllëgu Sénégal bu ñu sukkandikoo ci Walf Quotidien bokk na ci professeur Malick Ndiaye ne 23 juin ci jamono ji rax na la rax bokk na ci je suis Charlie ak Mburoog Sow Alioune ma ngay fàttali fàttaliku bëccëg googeeg na mu demee woon ne tey bu ñu demee ba Sénégal euh, di itamit di tendeefal ci wàllum troisième mandat mel na ni ba léegi jàngewuñu lenn ci euh, bëccëg googee euh, xewoon ci 23 juin 2011 waaye bëccëg googee kenn mënu ko wax ba jeexal te sa xel demul ci El Hadji Sidi Lamine Niass béy na ci waar wu yaatu kàngam la woon euh, ci 23 juin 2011 euh, euh, ci ni Sénégal doxee ba noone muy tàbbi ci leneen ci jëmmal démocratie bu Sénégal moom El Hadji Sidi Lamine Niass yéen a kaabi di alerte quotidien mu ngi ñuy dégtal M23 fukki at gannaaw gi ñetteelu mandat gañu ne daanaka moom mooy jur ji xijaaxa ci jamono ji société civile bi nag kenn xàmmeetu saytu ko bokk na ci transhumance bi euh, fës lool ña doon euh, diingat ak di métitlu doxalinu euh, nguruk Abdoulaye Wade gawoon doon bañ ticket présidentiel ba jàll ci assemblée nationale ñu bari ci ñoom jàll nañu ci nguruk Macky Sall ña nga feggoog njiitu réew mi Macky Sall yéen a kii di di ñu dégtal MDD googule kuréel ne dina fas yéene màggale 23 juin ca terrain bu HLM Grand Yoff askan wane déet duñ seetaan benn yoon ñu ci amal ndaje mbooloo politique foofee ca terrain ba ndax terrain goge fa la ñuy amale seen jullib juma rawatina xadra euh, xadratul juma fa lañ koy amale euh, du ñu nangu nag ñu koy gàkkal ci leneen ak leneen ne pare nañu ngir jàmmarloog waa m 2 ñu bañ ko fa amal euh, seen ndaje politique googu la jëm ci 23 juin yéen a kabidi li quotidien li jot a xew mooy fukki at a ngi nii Sénégal di fàttaliku la fa woon ci 23 juin 2011 bokk na ci Sénégal keroog la dugg ci taarixu politique gu yaatoo yaatu lan moo des société civile euh, anam ak euh, tànk yam ca taxawoon booba léegi euh, société civile gi fi ne luñ ci mun a jàngate li quotidien xëy di ñu ko yëggee ci xëtam bu njëkk yéen a kaabi di Sud Quotidien mu ngi ñuy dégtal M23 mi fas yéene màggal 23 juin bokk na ci tamit ñàkk a déggoo am ci troisième mandat gi ñuy rumbandaat ci nguurug Macky Sall classe politique beeg nam ca taxawee yéen a Sud Quotidien xëy ñu ko leeralal. yéen a bi di le quotidien euh, ñaareel fukkeelu anniversaire goo xamante ne ñu ngi koy màggal 23 juin goo xamante ne daanaka kàddu ga doonul benn 23 euh, juin googule xar na ñaar euh, daanaka ña koy bëgg a jëmmal yéen a bi ñii di waa M23 fas yéene wutali place de la nation ngir màggale ko fa M22 ne déet daañ ko amale ca terrain bu HLM Grand Yoff mu ngi ci yéen a bi di le quotidien yéen a bi di l'info ci xëtam bu njëkk mu ngi ñuy degtal euh, bëccëg googeeg la ca jotoon a xew bëccëg lagu gu tàngoon jër kenn dootu ko fàtte gannaaw bu projet Abdoulaye Wade bëggoon a jàll ci assemblée nationale askan wi jógoon taxaw ne xel xalaatul euh, ñu daganal ticket présidentiel boobu euh, ci bëccëg googule lafa fa jotoon a xew ci mbeddu Ndakaaru feneen ak feneen bakkan ya ca jotoon a rot ak nuñ koy màggalee tey jii ci fukkeelu waat bi l'info foo xeeduñu ko leeralal. yéen kaabi di las ci bu njëkk ne mobilisation gu takku lañ ci nar a séntu bokk na ci tamit euh, ña cay mobilisé waa m ca place de la nation euh, waa M2D ca HLM yéen kaabi ne euh, bokk na ci Alioune Tine moom warta noppi tey ndax fekkee na lu bëree bari ci bëccëgu 23 juin 2011 M2D ñoom ne ànduñu ci troisième mandat bu njiitu réew mi Macky Sall bokk na ci waa APR ñoom ne seppi nañu sax ci 23 juin. bi Ousmane Sonko Guy Marius Sagna ak Bougane Gueye Dany amuñu lu ñu war a wax eh, ci bile bëccëg yéen kaa bi di enquête eh, di eh, gi am ci ndono li ñeel 23 juin ndax kenn ku nekk ma ngay naan mana du du Sarr bokk ci mouvement M23 juin gis ne tamit M3 M23 juin googule daanaka du du du du ku jëkk bi du opposition beek nguur gi kenn ci ñoom moomu ko ci askan wi moom Abdoul Aziz Diop joxe na ci xalaatam euh, kilifa bu Y'en a ma ngay fàttali ne bëccëg googe euh, daanaka ca place de l'indépendance la ñu fanaan lépp ngir xeex euh, doxalinu nguuru ko Abdoulaye yéen a kaabi di le témoin lam ca seede ci 23 juin mat na fukki at ñu koy fàttaliku waaye nag coow am na ci ndono li xicco gi gaa yaa ngi koy xicco yéen a kaabi moo ñu ko yëggee ba tax na Bakary Domino Domingo Mané amal na ci taxaw seetlu professeur Ibrahima Bakhoum ak Al si 6 Albert kenn ku nekk am na ci njàngat gang ca euh, def yenn a kaabi di les échos ci xëtam bu njëkk euh, mu ngi ñuy tegtal nguur geeg eh, ku jeeg eh, politique bi kenn ku nekk bëgg a wane dooleem ci eh, bëccëgu 23 juin gi ñuy màggal ah, du du Sarr jàpp ne M23 bokk na ci du lu ñu war a xicco politique warta dugg ci M23 googee ndax askan wi jógoon di ñaxtu di xeexal seen bopp Fatou Blondé Diop jàpp ne askanu Sénégal googee nañ ci woon ba bañoon lu waroon a mun a dagan ci nguur ko Abdoulaye Wade tey lañu ñu fas yéene taxaw bañ loo xamante ne njiitu Sall bëgg na ko fee eh, daganal eh, bu ñu sukkandikoo ci Fatou Blondé Diop yéen kaa bi di eh, turbine ne àllarba tey jii àllarba show lay doon xëccoo ga ci wàllu mobilisation nar a tar lool MD2 ci HLM Grand Yoff bokk na ci tamit waa M23 ca place de la nation kii di maître El Hadj Diouf ñam ca nara feggool bokk na ci acteurs yi nga xamante ne ñoom la ñu jotoon a ci juin 2011 yéen ci ñooñee bokk na ci Alioune Tine ci ñooñee itam tamit bokk na ci euh, ki nga xamante ne euh, njiital groupe Walfajiri El Hadji Sidi Lamine Niass euh, liggéey gu yaatu la ci béyoon foofee nga xamante ne mooy ndakaaru ngir jëmmal démocratie bu Sénégal turbine xëy ñu fàttali liggéeyu ndem si yàlla El Hadji Sidi Lamine Niass yéen kaabi di critique mu ngi ñuy dektal élection locale yi bokk na ci fal maire yi ci suffrage direct njiitu réew mi Macky Sall ndax dina ci àndam déet te moo ne de ay jege ñaaleem bon waa Sambok Cheikh jot nañ ko daganal eh, ci ndaje politique gañu doon amal dialogue politique ba bi la yoon eh, li des mooy eh, ni ci njiitu réew Sall taxawee ndax dina ko yoonalam déet yéen kaabi di l'évidence mu ngi ñuy dégtal lancement jëm ci tamit yeesalaat mbëbës mu méngook jamono njiitu réew Macky ñu ngi ko fa xaar ëllëg ak jàmm ci samedi gi mu war fa jëmmal unité industrielle bu mbëbës jëm ci soppi maanaam mbalit gafane soppi ko mu ñeel wàllu énergie wala euh, wàllu engrais yéen a kii di l'évidence mu ngi ñu tegtali tamit Pape Demba tey njiital Senelec mu ñu fal bees ci association des sociétés d'électricité d'Afrique yéen a kii di Le Soleil mu ngi ñu tegtal inauguration data center euh, bu euh, Diamniadio yéen a kii ne Sénégal dugat na ci leneen loo xamante ne daanaka dina gën a ñongal Sénégal ci wàllu nekkin mu ñeel xarale yu bees yi. waa Grand Place fa la ñu des foofee ca jam bi le bërëb euh, daanaka benn la ci Afrique euh, sow jant euh, yéen a di waa Grand Place moo ñu ko yëggee Vox Populi ne kawteef am na ci bërëbu fajukaay ba ne ca Fadial foofe ca Joal Fadiouth daanaka ab sage lañ fa bëggoon a sàkku violé ko yéen a bi ne waaja ko agressé jam na ko ci loxo laata mu koy jam ci diggi ginnaaw bennoo ne itamit mu bëgg mu bëgg ko sàkku ci xaaju guddi soxna. Massa bañ eh, waaye nag amee na ci ay gaañu gaañu yu métte métti ba ba tax na ci jamono ji ma nga ca lalu hôpital eh, kuréel gi boot sage-femme eh, yi ne ci Sénégal méttitul nañu jafe-jafe yooyu le ne watuñ ci kaaraange bëgg nañu ku ku leen sàmmal seen i kaaraange ci bërëbu fajukaay ya ñu ne Vox Populi moo ñu ko yëggee direct news ba léegi pënd mi wureegul ci diggante El Hadj Ndiaye bu 2STV ak diggante mag TFM kalaame na ci yoon TFM gannaaw bu ñu ne TFM dafa doon doon piraté euh, ay euh, bouquet ak leneen ak leneen ba tax na euh, yóbbu na fu mbaxana doone benn kii di Youssou Ndour El Hadji Ndiaye jàpp ne googule jëf sax TFM yàgg na ko jëf atum 2018 ba tey yéena kaabi di l'observateur salgir foofe la xëyee tey ak la fa xew bokk na ci tamit Dakar club ndaje googe jëm ci wàllub forum d'Africa innovation yéena kaabi xëy duñu ko yëggee yéena kaabi di libération mu ngi ñu docteur Khadijatou euh, Fall euh, ma ñu ne euh, kenn gisatu ko ba ba léegi am ñu jàpp ne dafa demal boppam bokk na ci tamit gannaaw buñ ko buggee defeere ki tamit la tegu ci ndoddam ci ay plainte yu bari lool ndax njuuf njaac ak jalgati ga mu def moom Khadijatou Fall géejawaay la dëkk bu ñu sukkandikoo ci libération yéen kabi di ci xëtam bu njëkk euro ñu ñu ngi ci euh, pression gu métte métti yéen kabi di stade moo ñu ko yëggee yéen kabi di les arènes mu ngi ñu dektal Papa Sow euh, bokk na ci contrat yamu nar a amal bokk na ci tamit euh, diggante mag Balla ak i tamit yeneen mbër yi ak i tamit ki nga xamante ne mooy Lac de Guerre 2 àdduna ci naka lañu gisee lamb yi Gaston Mbengue àdduna i tamit ni arène bi bindoo ba ba léegi yéen kabi di les arènes moo ñu ko yëggee suñu lamb Sa Thiès na Euh, keneen kam war a bëreel ci googu lépp euh, combat euh, bokk na ci ne kombaam gamuy waajal ci jamono ji du ci xaar lenn moo koy diriger ba fu mu yem neex bu ñu sukkandikoo ci yéen kaay bi di suñu làmb yéema ku ñu jeexale xetu yéen kaay ci baatu askan wi mbokk yi lu nuyoo tàgg lu nuyoo tàggoo tàggatoo jot na jaajëfal ajaratu Penda Diallo Guèye mi ne woon ci machine bi.